salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla aji jub ci bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral sant nanu yàlla ci li nu leen mën di bége yéen ñépp ñuy déglu émission yoonu njub mbokk yi su ngeen amee pàttaliku mësoon nanu fi jàng ci mbirum kayin taawu aadama ak awa bi yàlla sàkke aadama mu gis wéetaayu góor ndaxte rabu àll yépp amoon nañu moroom mu ñu àndal aadama moom gisul woon kenn ku mu nirool noonu yàlla tàbbal aadama ci nelaw yu xóot jël ak faar ci moom sàkkal ko ci benn soxna bi aadama yeewoo mu gis soxna si mu niroog moom mu tudde ko awa ndax li ñu ko jële ci góor noonu yàlla ne looloo tax góor dina beru ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñoom ñaar ñu nekk kenn noonu la yàlla sàkkale sunu maam aadama soxna muy benn soxna kepp loolu moo tax sunu njàngum tey mi jëm ci mbirum soxna yu bare kon dinanu gis lu tax ak ci kan la jël soxna yu bare tàmbalee te it lu tax muy wéy di law ci loolu lépp nag fi ñuy sukkandiku mooy ci mbind mu sell mi kepp mbokki déglukat yi yéen a ngi fàttaliku ne aadama ak awa amoon nañu ñaari doom kayin seen taaw ak abel rakkam ni seeni waajur ñoom it ay bàkkaarkat lañu woon waaye xamoon nañu ne yàlla am na te dafa bañ bàkkaar ñoom ñaar ñépp xamoon nañu ne ku bëgg a jege yàlla faw mu jaar ci yoonu saraxe deret wi yàlla tëral noonu am bés ku nekk ci ñoom ñaar fas yéene màggal yàlla ci jébbale sarax kayin jël ci li mu bay jébbal ko aji sax ji ngir màggal ko abel moom jébbal yàlla yi jëkk a juddu te gën a duuf ci géttam aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin kayin mer lool ba xar kanamam lëndëm loolu nag deful lu dul wone ne kayin dafa mbubboo woon ngëm waaye ay jëfam weddi na ko gémmiñam a doon teral yàlla waaye xolam sore woon naka lool ndaxte li yàlla laajoon mooy deretu mbote waaye moom mu indil ko jëfi loxoom kon màggalam amul woon benn njariñ ci kanamu yàlla kayin fépp na bañ a nangu yoon wu njub wu yàlla tëral noonu kayin bañ a réccu xanaa mu nax rakk ji yóbbu ko ca tool ya daanu ci kawam rey ko seetal ma lii rek kayin bañoon na tuur deretu mbote ngir yàlla baal ko ay bàkkaaram waaye léegi mu ngi nii tuur na deretu rakkam ji jub ji lii mooy wone ne képp ku bañ a def coobare yàlla faw dinga def coobare iblis amul sikki saaka mbokk yi nuy déglu lii lépp wax nanu ko ci kayin ndaxte dañuy jàng tey ci mbirum soxna yu bare kon jaadu na nu xam kan mooy ki jëkk takk lu ëpp benn jabar kooku nag ci kayin boomkat boobule nag la soqi ko mu ngi tuddoon lamek kéwél du tëb doom ji bët ni ko wolof yi di waxe lamek aw na ci tànki kayin ba yées ko sax kàddug yàlla nee na lamek boomoon na ñaari nit daldi bàkku ci kanamu jabar ya ndax li mu gën a soxor kayin maamam xarit yi loolooy wone ne lamek moom itam faalewul woon waxu yàlla aji sax ji moom itam boomkat la woon dikku ku yëg boppam topp naf soo ma ko gënaloon topp coobare yàlla kon mbokk yi nuy déglu jàpp leen ne ab boomkat bu bañ a réccu yàlla ba sore ko mooy ki jëkkoon a jël lu ëpp benn soxna ndax ku mel noonu nga bëgg def sa royukaay xam naa ne yaa ngi naan ci sa xel a ah, loolu nag ci dëgg-dëgg sunu aada ay nit ñu màgg daan nañu ko def te ba tey ñu ngi jël soxna yu bari mani dëggit waaye loolu taxul mu nekk li yàlla bëgg ñu topp ko sooy fàttaliku ca njaalbeen ga ñaata soxna la yàlla sàkkaloon aadama sunu maam du woon ñaari soxna de benn soxna la ko yàlla sàkkaloon ndax yàlla dafa amul woon kàttanu sàkkal aadama yeneen soxna axa yàlla amoon na kàttanu sàkkal aadama juróomi soxna wala sax lu ko ëpp su fekkoon ni loolu mooy li mu namm lépp lu yàlla def dafa koy def mu mat baax te jekk yàlla mi sàkk nit moo gën a xam keneen ku mu mën a doon li gën ci nit kon benn soxna la yàlla bëggoon aadama am ko te loolu nekk royukaay ci bépp doomu aadama waaye lamek moom daldi nekk maram baraan mi jëkk ci askanu aadama ci mbirum soxna yu bari moom faalewul woon yàlla te it bëggul woon lu dul topp nafsoon ba tax mu takk ñaari jabar ada ak sila naka ñi toppoon aaday lamak jooju yàlla santu leen ko woon amul fenn ci mbind mi fu ko yàlla defe ab santaane ñi ko def ñépp ci seen coobare bopp lañu ko defee moo taxit daanaka ñoom ñépp ba ñu ko defee ay coono yu mënoon a ñàkk ci seen dund juddoo na ca ci loolu nanu jël ñaari misaal rekk ci ñoom ibrahima ak suleymaan ci lu jëm ci ibrahima yàlla diggoon ne ko ne dina may askanam réewum kanaan te xeeti at yépp dinañu dinañu barkeelu ci moom ay ati at ga ibrahima ak jabaram saara gis ne ñu ngiy màggat te amaguñu doom ju tax ñu mën a am aw askan noonu kàddug yàlla ne saara amul woon doom ci jëkkëram ibrahima te fekk amoon am bu juddoo misra tudd ajara saara ne ibrahima déglul ma wax la aji sax ji deful ma am doom kon nag maa ngi lay ñaan nga dem ci sama jaam bi ndax yàlla def mu jural ma doom ibrahima nag dégg waxu saara loolu amoon na gannaaw ba ibrahima dëkkee fukki at ca réewum kanan saara daldi jël jaamam ajara jox ko ibrahima jëkkëram ngir mu ànd ak moom noonu ibrahima dem ca ajara mu daldi ëmb ajara nag bi mu yëgee ëmb bi mu daldi xeeb sangam saara kon saara daldi wax ibrahima ne ko tooñ gi ma ajara tooñ yaa ko yóbbee jox naa la sama jaam ngir nga dem ci moom waaye bi mu yëgee ëmb bi dafa ma xeeb na aji sax ji àtte sama diggante ak yow ibrahima tontu saara ne ko sa jaama gi ci say loxo def ko lu la neex saara nag daldi ko toroxol ba ajara daw ko fu sore dégg ngeen ni yàkkamtik Ibrahima taxe mu déglu jabaram saara ba jël ab ñaareel waaye ku jég ñaari soxna yi jur na wax ci diggante Ibrahima ak awoom saara ku jégi jur na it kañaan ci saara ndax li ajara ëmb noonu ajara it xeeb na saara te mere ko kon mbokk yi gis ngeen ne coow ak coxor tàbbi na ci kër Ibrahima ndax jabar yu bari naka suleymaan moom amoon na alal ak xam-xam lool nekkoon na buur bu dëgër tey sàmm ndénkaanay yàlla aji sax ci kàddug yàlla nee na bi daawuda baayam jege àppam dénku woon na suleymaan ne ko maa ngi jaar ci bunt bi àddina sépp di jaar nanga nga dëgërlu te góor góorlu ci wattu ndénkaanay aji sax ji sa yàlla di jaar ci ay yoonam ni ñu ko binde ci yoonu Muusa bu ko defee dinga am ndam ci lépp looy def ak fépp foo jublu gannaaw ga suleymaan wuutu daawuda baayam ca jalba te nguuram sax ba dëgër bi suleymaan wuutoo buur daawuda ci nguuru israel yàlla jagleloon na ko xel ak ràññee bu jéggi dayo waaye ndeysaan ci mujjug dundam jabaram ya taxoon nañu mu sóobu ci lu dëppoowul ak coobare yàlla suleymaan dem na ba tabaxal jabar ya ay bërëb yu ñuy màggale seeni yàlla moona suleymaan xamoon na bu wér ne jeneen yàlla ju dul aji sax ji amul wante bëgg a neex ay soxnaama ci dugaloon loolu la kàddug yàlla wax ne bi suleymaan màggatee ay jabaram jeñ xolam ci yeneeni yàlla ba xolam bépp nekkatul ci aji sax ji yàllaam te suleymaan tabax ca tund wa féete penku yerusalem màggalukaay bu kawe ngir kemos yàlla ju araam ju mowaab ak màggalukaayu molok yàlla ju araam ju bànni amoon noonu la defal jabari làkkatam yépp ñuy taal cuuraay di rendil sarax seeni yàlla waaw ndax soxna yu bare ak bànneexu bakkan jar na njaboot gu xët ndax jar na siis ak kañaan tàbbi ci kër goo xam ne ak dal moo fa mës a am te itam ndax jar na sore yàlla mbaa di dugg ci mbir yu mu gërëmul te bëgg ko déedéet jaru ko kay xarit yu ñuy déglu ci sunu cosaanu Afrique gi dëgg la jël soxna yu bari bokk na ci aaday yenn xeet yi waaye dañu gis ne bokk na ci yi ko daan waral wàllu koom-koom ak gëdd ak ñoom seen ndaxte démb daan nañu gën a wekk nit ku am njaboot gu sakkan boo amaan soxna yu bare ñu jural la doom yu bare ñoo lay liggéeyal te doo fay dara ñi nekk ca tool ya di bay bu ko defee nga mën a bay tool yu yaatu te am ngóob mu sakkan ña ca des féete ci càmm gi di toppatoo jur gi sa alal ñoŋ ku mel noonu daan nañu ko tudde borom barke ñu daan ko gën a jox wegeel ak gëdd ndax alalam waaye nag mbokki déglukat yi la woon démb du tey dundinu démb wuute na ak bu tey rawatina ci yenn gox yi moo tax waratuñu yem ci seet wàllu koom-koom bi rekk ak sunu nafsu loolu warula tax nit ki jël soxna yu bare di aw ci yoon wu yàlla diglewul li wér te ñu war ci bàyyi xel daal mooy ca njalbeen ga yàlla tànnalul woon aadama lu dul benn soxna muy awa kon misaal mi fi yàlla tegal bànni aadama mooy genn góor jenn jabar waaye bàkkaar bi dëkk ci nit moo koy xiir ci tànnalu lu coobare yàlla mbokk yi ñu déglu nanuy fàttaliku ne gannaaw ba yàlla sàkke góor te gis wéetaayam benn soxna képp la ko sàkkaloon muy misaal mi fi yàlla tegal bànni aadama yépp waaye gis ngeen li sotu aadama bi di lamek tànn tànn na lu wuuteeg misaal mi yàlla joxe ci sëyu aadama maanaam góor gu nekk benn soxna lamek moom daldi tànn takk lu ëpp benn soxna noonu ñeneen ñi aw ci tànkam bañ a topp misaalu yàlla waaye gis ngeen noonu ne li bibel bi yaatu lépp boo ko lëj mbëtee li nga ciy fekk ci boroomi soxna yu bari weesuwul fukki nit ak ñett ñuy lamek mi sos jooju jëfin ibrahima esaawu magu yanqooba yanqooba doomu isaaxa sedeyoon doon àttekat ca israel elkana baayu samuel buur ba daawuda buur ba suleymaan ashur robowam doomu suleymaan abiya doomu rabawam te it di sët ci suleymaan yowaas doon buur ca israel belkat saar doon buur ca babilon boo déggee tur yooyu yépp xanaa dinga ne waaye nit ñooñukat am na ci niti yàlla kon sunu leen royee kay baax na su fekkee loolu mooy sa xalaat xamal ne li ci yàlla jublu mooy nga gis ne yàlla rekk a mat ba tax lu nit am am daraja mën naa mooy coobare yàlla kon ñoom yàlla def na ñu bind seeni mbir ci biibal bi ngir ñu bañ a topp seen misaal yi jëm ci jël soxna yu bari moo tax kàddug yàlla ne mbir yooyu leen daloon misaal la ci nun te bind nañu ko ngir artunu nun ñiy dund ci jamono jii lépp man wante su fekkee ne bi ngay gëm yéesu dafa fekkoon nga am lu ëpp benn soxna kàddug yàlla dafa ne nag kenn ku nekk jàpp ci li mu nekkoon bi ko yàlla woowee faaw ku nekk wéy ci kanamu yàlla ci fànn ga mu nekkoon bi ko yàlla woowee mbokki déglukat yi dinanu dellusi ci mbir mi ci yeneen njàng jëmmi jamono waaye tey bala nuy jeexal bëggoon nanu leen bàyyee aaya yi nu jukkee ci kàddug yàlla mbind mi dafa ne buleen leen màndi ci sàngara liy ndeyu ñaawteef waaye fees leen ak xel mu sell mi di waxante ci seen biir ci ay taalifi saboor ci ay woy ak ay cant yu tukkee ci xelum yàlla di woy ak a kañ borom bi ci seeni xol gërëm leen yàlla baay bi ci turu yéesu kirist borom bi fu ngeen mën a toll ci lu mu mën a doon teg ca nangul sa moroom ci biir wegelu kirist naka yéen jigéen ñi nangeen nangul seeni jëkkër ni su doon borom bi ndaxte góor mooy kilifa jabaram ni kirist nekke kilifa mbooloom ñi gëm muy jëmmam ji muy sàmm ni mbooloo mi nag jiitale kirist noonu la jigéen ji war a jiitale jëkkëram ci lépp na góor bëgg jabaram ni mu bëgge boppam bëgg sa jabar bëgg sa bopp la ndaxte kenn mësula bañ sa yaram waaye danga koy dundal di ko fonk noonu it la kirist fonke mbooloo mi ndaxte noo di cëri jëmmam na góor gu nekk bëgg jabaram ni mu bëgge boppam te jigéen ji wekk jëkkëram kon xarit yi ñuy déglu fii lañu yem ak yéen tey su ngeen amee laaj ci li ngeen dégg tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku aaye bi ci mbind mi naan aji sax ji nelawloo aadama nelaw yu xóot mu rocc genn ci faaram defar jenn jigéen képp ca faar ga indil ko ko muy soxnaam